Et dès que compte lui en fut rendu, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Maître Sidi Kaba, a demandé à ce que toutes les dispositions soient prises pour apporter secours et assistance aux victimes. Il a donné instruction donc à ses services, euh, notamment la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, la police nationale, l'administration territoriale, de mobiliser l'ensemble des moyens disponibles pour que ce sinistre soit euh, géré de manière optimale. Ainsi donc, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers à déployé ses unités d'élite. Euh, d'hier soir, donc, 1h du matin à ce jour, 13 les équipes ont travaillé et ont apporté assistance et secours aux victimes. Mhm. Euh, les services également du ministère de la Santé et de l'Action sociale se sont mobilisés pour que les victimes soient reçues dans les structures sanitaires de Dakar. Je dois également euh, le dire pour euh, m'en féliciter, l'apport considérable des civils Euh, mais également des collectivités territoriales à travers la mairie de Grand Yoff. Donc, en résumé, euh, après des heures de travail, nous sommes en mesure de dire, et le, le, le commandant du groupement d'incendie de secours reviendra sur le bilan, mais on est en mesure de dire que globalement, euh, 12 blessés ont été dénombrés. Sur les 12 blessés, 11 sont reçus dans les structures sanitaires de Dakar et le 12e a été traité sur place. Malheureusement, nous déplorons euh, 5 corps sans vie, donc cinq corps qui ont été retirés des décombres. Et actuellement, les corps sont gardés dans des structures de la place. Euh, je dois également signaler que M. le ministre de l'Intérieur, qui est hors de Dakar, il faut le signaler, pour euh, une mission étatique, a délégué son directeur de cabinet pour se joindre aux équipes afin de marquer sa présence et sa solidarité. Madame le ministre de la Santé en a fait de même et effectivement, nous pouvons dire que la situation est maîtrisée, les blessés secourus et les opérations de déblai se poursuivent. elles se poursuivent pour être sûres qu'il n'y a pas d'autres victimes. Donc nous pouvons considérer que le bilan que je viens d'annoncer constitue un bilan provisoire, un bilan d'étape, tout en priant que ce bilan n'évolue pas négativement. alors mooy leen di gërëm di leen di sant di leen di xamal ni démb ci guddi boori une heure du matin lañ ñu yëgal ni am na benn bâtiment R plus 3 bu nekkoon en en réhabilitation bu daanu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 ci coordination préfet bu Dakar présence sous préfet ak lépp lu nga xam ni dépendre na ci moom ñëw nañu ci guddi gi sapeur pompier apporté na secours ak assistance victimes yi police defar na périmètre de sécurité euh, ñi nga xam ne également ñooy structure de santé yi mobiliser leen ci guddi gi ñu de ñu mobiliser seen i ambulance ubbi seen i bunt ba blessé yi nga xam ni jëlee nañ leen fii ñu yóbbu leen foofu ñu jël leen en charge donc ñuy euh, saluer liggéey boobu di wax ni également les privés ñi nga xam ne ñoo ay entreprise ci zone bi inji nañu seen i moyens jox ko sapeur pompier yi ñu bokk ci liggéey bi mairie bitam itam macha allah taxaw na fi nga xam ne fa la ñuy xaar mairie ministre bi yemul ci loolu mu ni directeur bi cabinet ànd ak général bi nga xam ne mooy commandé sapeur pompier nañu ñëw teewal ko fi ba liggéey bi sotti donc bi ñu yaakaaree ne nag nii nii nii sotti na. daanaka sotti na parce que xool nañu xoolaat mais xool baa ngi puus mën nañu wax ni am na fukki nit ak ñaar yu nga xam ni am nañ ci ay gaañu gaañu fukki nit ak benn yooyu ñu ngi ci structure sanitaire yi kenn ki moom fii lañ ko faje ba mu dem yoonam waaye nag malheureusement am na ci juróomi nit ñi nga xam ni ñàkk nañ ci seen bakkan ñu jël seen koor yooyu mi ngi ci mu ngi ci structure yi nga xam ni c'est sur et ñu leen di ñaanal suñu borom xare leen àjjana mu doon également fi nga xam ni war nañu mën a ci turu ministre de l'intérieur mais également et surtout ci turu président de la république présenter condoléance su gouvernement bi yëpp gouvernement euh, condoléance njiitu réew mi gouvernement bi ak son chef muy monsieur Amadou Ba le ministre de l'intérieur ak l'ensemble du gouvernement di wu njaboot yi di wax ni nag euh, bu lii weesoo liggéey bi nga xam ne tàmbali woon nañ ko ci wàllu gestion des bâtiments menaçant ruine euh, ca nga xam ni euh, ñu ngi koy suivre euh, jaadu na léegi ñu mettre ko en application gannaaw ba nga xamee ni sotti na di wax ni daal loolu mooy li fi am su fekkee ni nag am na ay détails ci par rapport ak intervention sapeur pompier commandant bi nga xam ne mooy diriger groupement d'incendie de secours numéro en dina ci dellu si je saisis juste l'occasion euh, après ce genre de sinistre euh, pour présenter les condoléances de son Excellence Monsieur le Président public, de Monsieur le Premier ministre, du ministre de l'Intérieur et de l'ensemble du gouvernement aux familles des victimes, euh, tout en priant pour que le bon les accueille dans son paradis. Martial Ndione. commandant Martial Ndione. commandant le groupement d'incendie et de secours numéro 1, commandant des opérations de secours. Donc, comme vient de le dire monsieur le gouverneur, on a été alerté à 1h00. À 1h06, les premiers engins se sont présentés. La situation à l'arrivée, c'était l'effondrement partiel des trois étages d'un bâtiment en cours de réhabilitation au niveau du quartier Khariala. Donc bilan à 13h02, 17 victimes, dont 12 blessés, avec 11 prises en, 11 évacués vers les structures sanitaires, une prise en charge sur le site et cinq corps sans vie. Donc l'ensemble des moyens engagés est de 21 véhicules, dont 16 de la brigade, 5 de nos partenaires civils. Donc je tiens à préciser que l'ensemble des personnes, personnes signalées manquantes ce matin ont été retrouvées. Mais n'empêche, on va continuer les opérations de déblai jusqu'à ce qu'on atteigne le plancher bas du bâtiment pour être sûr qu'il n'y a pas d'autres victimes. Donc c'est opération qui sera très longue et les engins risquent d'être là jusqu'à la fin de l'après-midi. Donc il y des mesures qui seront prises quand pour sécuriser les lieux avec l'appui de la police nationale et on va continuer les opérations. donc euh, man maay commandant Martial Ndione commandant groupement d'incendie et de secours numéro un donc te ci suba une heure dañ ñoo woo pour benn bâtiment bu daanu juróom benn minute après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 ñoom ñoo ñu ko déclaré woon donc gis nañ ñëpp ñi ñu déclaré woon ne gisuñu leen mais n'empêche opération yi dañ koy continuer parce que il faut ñu dindi gravaay ba egg ci plancher bas bi pour mën a pour mu wóor ñu ne information yi ñu amoon concernant les personnels yi nekkoon ci bâtiment bi c'est fiable donc pour cela police dina continuer di ñu sécuriser def benn périmètre de sécurité